day jàll si ci ku jëkkëram faatu nag muy jàpp idda mu ne moom ndegam moom weesu nga bu ëmbee ndax bu ëmbee moom bu amee doom rek mooy jeexu iddaam waaye nag moom mi jëkkëram faatu bu fekkee ne ambut iddaam day doon yeenti weer ak fukki fan moom nag jigéen ñëpp dañ koy sant ka jot a wéetug jëkkëram ak ka wéetut ak moom kay gone ak kay mag saa yu jëkkëram faatoo rek mu war a jàpp idday faatu jooju ñàkk ga joti dara ak ngone gaag yooyu du ci dara yeenti weer ak fukki fan doon sax jëkkëram da koo fase woon pase moo xam ne sañoon na ko fay li bu ñu fasee jigéen pase moo xam ne rek jëkkëram mën naa waaxu ñu jël si waat ko ne sama soxna laay jël rek àtte soxna lay amee bu jëkkër ja faatu woon te idda ji jeexut soxna soosee day bàyyi idday fase jëm jàppoon jàpp nag idday faatu bu ñu nee ku jëkkëram faatu te abut bu amee yeenti weer ak fukki fan iddaam jeex na léegi-léeg idda ji jeex mu daal di mën a wuti jëkkër léegi-léeg itam du sañ a wut jëkkër fa saasa bu dee koo xam ne moom jëkkëram joti wutoon ak moom dara bu dee gone koo xam ne itam du gis baax mbaa muy mag moo xam ne naagu na ci gis baax mbaa muy ki nàmpal koo xam nàmpal ko dana tee mu gis baax ñooñu ñëpp moom ku ci am yeenti weer ak fukki fan rek mën naa daal di wuti jëkkër waaye nag nga jàpp kee nga xam ne moom la ci bëgg a teg nga ràññeel ko ni mu ko ràññeele mooy koo xam ne mag la toll ci di gis baax ak am doom bu jëkkëram faatoo ñu ne bu amee yeenti weer ak fukki fan idda ja jeex na dañ ciy sart ñaari sart yoo xam ne mooy tax na mu daal di mën a wuti jëkkër fa saasa benn ba mooy jurub idda ji mu yeenti weer ak fukki fan jot na fee gis baax kon tekkal la ci ne moom ëmbut mbaa boog bi jëkkëram di faatu daa tolloog muy door a gis baax te moom bu xasee gis baax bala koo gisaat am juróomi weer nga xam ne kon dana toog yeenti weer yaa fukki fan te du sa gis baax waaye la ko waral rek mooy daa àggagul ci waxtoom ko war a gis ñaareel ba mooy moom ci roppam jàppul ne ëmb na ba tey jigéen du ko gis mukk ba jàpp ne moom mii toll na ci ëmb kon moom ci boppam jàppul ne ëmb na te jigéen du ko xool ba ne moom mii daa ëmb bu ragalee ne dafa ëmb mbaa jigéen di ko xool ne ah kii day daa ëmb kon du mën a wutagul jëkkër day néggandiku yaar yi lu mu ca jëkk jot rek yem ca du jar muy xaar la ca des mooy gis baax ak am juróomi yeenti weer bu gisee baax mën naa wuti jëkkër bu gisul baax ba am juróomi yeenti weer itam te amatul lu muy wóoloo di ko ci ëmb mën naa daal di wuti jëkkër waaye nag bu amee juróomi yeenti weer te taxul nag mu wóolu boppam faawu day dema dem rek ba kumpaam dañ ci boppam wala mu àgg ci gën jaa yàggi ëmb muy juróomi at te it bu àggee gën jaa yàggi ëmb juróomi at waxoon nañ la lañ cey wax mooy rek su amee juróomi at te na meloon dara soppikuwu ca mbaa daa wàññiku sax kon moom mën naa wuti jëkkër waaye nag bu fekkee daa yokk mbaa far daa am yëngu ca biir ba ñu jàppe ko doom bu sañ wuti mukk jëkkër te demut ba kumpaam dañ ca loolee jamono yi jaam xëyee la ne jaam bu jigéen moom lii da nga waxoon léegi ci gor te mooy yeenti weer fukki fan jaam bu jigéen xaajub loola lay am rek bu amee ñaari weer daal ak juróomi fan te fekk mu ndawee ba du gis deret mbaa mu magee ba du gis deret mbaa jëkkëram ji faatu jot toolu wéet ak moom mbaa jot naa gis baax ci biiru yaari weer ak juróomi fan kon daal ne mën a wuti jëkkër waaye nag bu fekkee ne am na yaari weer ak juróomi fan te gisu ci baax benn yoon te mag la moo xam ne jëkkëram wéetu naag moom mi toog rek gis baax te gisu ko kon day bàyyi ba am yetti weer ba xam bu am yetti weer nag te gisul baax yëgul ci bopp lu nuru ëmb kon yetti weer ya doy na mën naa daal di wuti jëkkër waaye nag moom it bu amee yetti weer kat di sig sàkk naa li ci biiram ëmb la am du ëmb maanaam ñàkk wóolu boppam daal ci ne ëmb ngi ci biiram da ngay delloo si àtte ba nga waxoon léegi mooy du sañ wut jëkkër ci saasa day xaar ba xam dana gis baaxam déet mbaam àgg ci juróom yeenti weer su gisee baax mën naa daal di wuti jëkkër bu amee juróom yeenti weer te yëgatut lu muy wóolu di ko ci boppam ci ëmb ak ñàkk ëmb ba tey mën naa daal di wuti jëkkër waaye nag bu àggoon juróom yeenti weer it te wóoloo di ko ne ëmb ngi ci moom du sañ a wuti jëkkër mukk te demul ba kumpaam dañ ci boppam wala mu àgg ci gën jaa yàgg ëmb juróomi at te bu ci àggee it nga delloo si rek la ñu ci fàttalee woon léegi jaam bu jigéen boo xam ne jëkkëram dafa faatu wala jëkkëram fase ko pasem pay li mu daal di jàpp idda far nag gore ci biir idda ja mu ne gore ga du tax ñu ne ko da ngay bàyyi idday jaam te ñëw ci idday gor idday jaam jëm jàppoon rek ba tey moom lay jàpp lu may nag jëkkëram da koo fase woon pasem pay li dong laata idda jee jeex mu gore ba mu gore it jëkkër ja faatu kon day iddawu idday faatu da def ko idday gor ak góor goo xam ne dafa jekki-jekki wax ne sama soxna si fase woon naa ko ci dat sàngam mel ne noo ngi toll ci weeru rajab mu ne sama soxna si ban tolloo ci tamxarit laa ko fase woon bu fekkee ne amul ay seere day dañuy jàpp ni soxna si moom tey jiñ déggee mu wax fase mi rek ci la war a tàmbalee jàpp idda bi jigéen jàppee idda ci loolu nag bu faatoon te idda ji jeexut dañu seet na nag jëkkër ji moom dat ba mu waxoon ku ko seeta nag léegi idda ji war na fee jeex jëkkër ji du doon soxna soosu mel ni noo ngi ci weeru rajab moom mu ne ca tamxarit la ko fase woon bu seetee ne ku tàmbale idda ja ci tamxarit ba léegi dana fekk idda ji jeex kon la mu wax rek la ñuy jàpp ne ko doo ko doonu ndax iddaam ji nga xam ne ku topp sa wax moom la waroon topp jeex na te nag safaan bi mooy bu fekkoon ne góor gi ci boppam moo faatu faaw soxna si daal di koy donn li fekk iddaam ji nga xam ne moom la tàmbali ci bi mu déggee passé mi ci weeru rajo bi li fekk idda jot jeexul rek bu si góor gi faatoo mu donn ko bu ñu seet la góor gi waxoon tàmbalee tam xarit dañuy seet bi mu tàmbalee idda woog léegi bu fi jëkkër ji faatoo rek te idda ji jeexul mu war koo donn xëy na doo fàtte nag loolu lépp day fekk passé ma nekkoon passém pay li ndax passém pay li mooy passé moo xam ne li fekk idda jay jeex ku ca faatu ci ñoom ñaar morom ma donn ko li nga wax léegi nag ci jëkkër ji nga xam ne daa xëy bis rek ne sama soxna si fase woon naa ko ci dat sàngam muy dat bu wéewee ca gannaaw li nga ci wax léegi la ne ba ñu topp noonu mooy amul ay seere yu seere ne wax na dëgg dat bi mu wax fase woon na ko ca bu xasee am ay seere yu seere ne dat bi mu wax ca la ko fase woon dañuy sukkandikoo wax yi seere ya jàpp dat ba ñu wax jigéen ja du jàpp idda ji yees te it bu fekkee ku topp dat baag léegi idda ji war na fee jeex bu góor gi faatoo itam du ko donn ndax moom di jàpp idda ji yees itam waxi seer rek moom la ñuy jàpp bu idda ji waree jeex jeex na kenn du ci donn sa moroom ndegam nag xos na am ay seere moom yu seere ne dat bi mu wax ca la fase woon jamono yi mu wér ak mu tawat tawati faatu ñooyemoo waaye ni ñu ko waxe woon ci gannaaw jëkkër ji bu demoon ba tawat tawati faatu door a wax ni sama soxna sii fase woon naa ko ci dat sàngam te amul yenn seer yu mën a wax ni wax na dëgg fase woon na ko ca booba dañ koy jàpp ne ku fase ci biir tawati faatu nga xam ne soxna si di daal tàmbali jàpp idda ci bi mu déggee mu wax passé mi te nag lu yàgg-yàgg bu idda ji jeexoon ba mu siiwaat ba am fi ay jëkkër jëkkër itam su faatoo rek bu war a jël wàllam ca dono ba ndax la ñu waxoon ci fase ci tawat nga bañ a fàtte itam ne saa yu soxna si dëggalee waxi jëkkër ji ne wax na dëgg de dat boobee la ma fase woon kon doon bee nga ko waxaloon dañ koy daal di dindi ne ko kon nag nga dem idda ji ku ko seet ba baa léegi jeex na kon doo ko doon lu tee nag nga jàpp idda ci bii mu waxee passé mi ndax dañuy ragal ne yaag moom dañu na kompaloo bëgg rek idda wàcc la mu ne nag bu jëkkër ji fase woon soxnaam ñu dem ba idda ji jeex waaye soxna si moom yëgul ne kenn fase na ko jëkkër ji waxu ko ko kenn waxu ko ko muy rek nag di jël ab dund ci alali jëkkër ji alali jëkkër jaa ngi fi idda ji jeex na waaye moom yëgul ne kenn fase na ko di jël rek ca alal ja nag di dunde mbaa sax mu dem a dem ba gisul ko jox ab dund mu fab ci alali boppam di def ab dund mu ne jëkkër ja moo sàggan ba lu soxna si jot a dundi sax ci alali boppam war na ko koo fay dem rek ci soxna si du ko delloo lam jot a dunde ci alali boppam moom jëkkër ji waaye lu soxna si jot a jël ci alali boppam dunde ko sax jëkkër ji war ko koo fay ndax moom ba mu ko fasee moo ko waroon yëgal ne ko fase naa la ñu daal di xam nañu def lépp lu soxna si leboon sax ci wàllu dund ba te jaare ko ci aw yoon nga xam nekkutoon di yàq sax moom jëkkër ji moo ko war a fay ne loolu nag wuute nag jigéen joo xam ne jëkkëram daa faatu te yëgul ne jëkkëram faatu na muy jël nag dépasse ba ci àll jëkkër ja ndax yëgul ne jëkkëram jooju faatu na mu ne moom lam jël lépp lépp bu jëkkëram faatoo ba ba ñuy miraas da ko war a fay say ba ñu seet wàllam ca miraas ma su fekkee ñoom ko bokkal bàyyiwuñ ko ñu seet lam jot a jël ca alal ja ñu féetale ko ci wàllam ba xam bu waree dolli dolli buñ ko waree dolli dolli ko buñ ko bàyyee nag loola te sañ koo bàyyee baax na jëkkër ji moom bu xasee faatu rek dépasse wàcc na ko alalam kenn du sañ a laal dara dañuy def dañuy bàyyi alal jëm noonu seet ko lépp nag daal di koy miraas kenn ku ne jël wàllam ci gàttal ki faatu moom ba mu faatoo rek moomatul alal ja dona yi ñoo ko moom kon nag dona yi koo ci xam ne yaa ngi doon jëfandiku ci alal ja ngir ñàkk yëg na rek kooko faatu na du tee yaa ngi doon jëfandiku ci alal joo xam ne yaa ngi doon yëpp yéen a ko bokk jigéen joo xam ne jëkkëram da koo fase waaye faatu ba tey moom sañ naa waaj kenn du ko wax ne ko da ngay ténj moom mën naa waaj waajtaay ba nga xam ne islam maye na ko te wutiwaat jeneen jëkkër ndax dañ ko fase rek jëkkëram faatuwut waaye nag bu jëkkëram faatoo bu dee iddawu diwéeg idda ja da ca bool li ñuy wax ténj ténj nag moo di ñaawlu maanaam bàyyi xel jëkkëram bi nga xam ne moo génn àdduna ba bañ a waaj waajtaayu àdduna ténj googu nag moom baa nga ne ñaawlu fii ci aada yi sunu jigéen ñi dañ ci juum ak a jaawale lool léeg-léeg ñu jàpp ne liggéeyal seen jëkkër ji faatu la li ñu def moom liggéey bu ñu liggéeyal seen jëkkër ji génn àdduna ñu war a jàpp nag bu baax ne lislaam daal moo dégle jigéen ji nekk julit jëkkëram faatu mu bàyyi lépp luy waajtaayu àdduna durub idda ji jeex ndax sàmmoonteeg ormay jëkkëram joojee faatu nde ci wàllu jaamu yàlla ji ni ki sàmmoonteeg julli juróom ak war a sàng yaram weeg lépp moom dañ ko ko sante woon ba jëkkëram faatoogut bi jëkkëram faatoo di yokku du wàññiku lu lépp amul dara lu ca yokk mbaa lu cay wàññiku bokk na ca nag la gën a mat a wattandiku jàpp ne ñoom dañoo war a julli balaa waxtu waa jot dañoo war a jiitu waxtu julli wa loolu lu araama araam la bokk na ci bàkkaar yu mag yi julli te waxtu wa jotut te tey ko boole ca bu ko teyitoo nit bu jullee te waxtu jotul rek bu waxtu jotee mu war koo baamu waaye nag tey ko boole ca moom daa bokk ci bàkkaar yu mag yi kon noo ngi wax ci benn benn ci teqale yi nga xam ne jigéen ji tëñ ji war na koo jàpp bu baax xam ne loola rek lañ ko aaye lu bokkut ak loola mën na ko ba ci jëkk mooy lépp lu ñuy waaje ci xeeti takkaay yi moo xam ay jaaro la ci nopp mbaa ci loxo mbaa ay lam lépp luy xeet takkaay yi ñu koy waaje rek kuy ténj du ko saña jëfandikoo ak lépp luy xeetu lat ko lañ lu ne xet rek du ko saña jëfandikoo bu nee nag lu ne xet du ko mën a jëfandikoo kon bu fekkee moo doon métier da daan liggéey lat ko lañ du ca mën a liggéeyati bu fekkee da ko daa jaay te muy taq ci moom it ci bu ko dee jaay it du ko mën a jaayale ci boppam waaye nag muy liggéey bi muy njaay mi mën naa seet keneen koo xam ne moo ko koy liggéeyal mbaa moo ko koy jaayal waaye moom ci boppam moom du ko mën a liggéeyati du ko mën a jaayati kon ñu jàpp ne benn ngog mooy jigéen bu dee ténji mbaa nga ne bu dee ñaawlu lépp rek luy xeet takkaay du ko sañ a takk lépp luy xeet lat ko lañ du ko sañ a xeeñoo du ko sañ a liggéey du ko sañ a jaay ndegam bu ko dee jaay mbaa moo koy liggéey dana ko takk di xeeñ ci moom ñaareel bi mooy xeeti yére yi bépp yére boo xam ne dañ koy waajee moo xam dañ ko suub suub loo xam ne waajee tax ñu suubee ko noonu yépp yére bu ñuy waaje rek du ko mën a solati booba ténj gi jeex li may nag am na xeetu cuub goo xam ne daawuñu ko waajee dañ ko daan def ci bisu naqar mel ne cuub gu ñuul kukk bu dee ña koy sol bisu naqar moom jigéen jee ténj ji mën na koo sol ndax du waaj taay waaye nag bu dee barab boo xam ne cuub yëpp la ñamale mbaa sax ñoom cuub gu ñuul googu dañ koy waaje kon kii ténj ji du ko mën a sol benn yoon kon nag ñaareel baa ngoog bu sol yérey waaj waaye nag néewuñu na sol yérey góor mbaa dara mën naa sol yére yu ko soob ci yére jigéen yi li fekk nekkul yére bu ñuy waaje rek xam ne ko sol jàpp na ngaa waaj rek mën na koo sol ñetteel mooy du sañ a defar boppam mbaa yaramam ci dara loo xam ne da koy nëtëxal di ko rafetal du sañ a defar boppam du sañ a defar yaramam ci dara loo xam ne day nëtëxal yaram wa mbaa bopp ba li mu ne du sañ a defare boppam li ñuy wax fuddan mbaa turbal fuddan xam nga ko turbal nag dañ ko daan def ci kawar du ko ñuulal sax waaye dana dindi weexaay ba loo xam ne jubluwu caa taar taarlu dafa bëgg rek mu set ni ki saabu ordinaire yi nga xam ne day setal rek wala mu diwoo diw karité ak lépp lu ñuy fajoo rek mbaa ñu koy setale waaye amul xet gu neex ma mën na ko diw ci yaramam li ñuy wax nag wat ab naq wala xus kawari poqtaan moom dañ ko wax ne ko dañ la koy aaye bu ko neexee bu bëggee wat ab naqam wala xus kawari poqtaanam mën na ko jamono yi nga xam ne daana am ay sangukaay yoo xam ne dina ñëw fay door a dugg nag sangu sangu bu baax a baax ki nga xam ne mooy téen ji du sañ a dem ci sangukaay yooyu ci yooyu jamono bu dee suñu jamono ji itam xeeti salon yeeg si ñi defaroo du fa sañ a dem lu may nag nee nañ ci yooyu jamono moom bu amee ngàntul dem fa ni ci mu amee ak wér di mu tax ko faa dem ci sangukaay yooyu yooyu jamono am na ñu ne ayutoon sañes na ko ba tey du sañ a tusngalu ndax tusngal waajtaay la lu may nag mu di ko faje ay bëtam bu fekkee da koy fajoo moom nga xam ne defu ko waajtaay doonte sax la muy tusngaloo neex na xetit du tee mën naa tusngalu waaye nag dañoo bëgg mu di ko def ci guddi gi su bëccëgee mu dindi ko ba mu set bu guddee mu dellu ko defaat ndegam daal du ko wàññi dara ci bu ko yemalee ci guddi ga te bañ koy def ci bëccëg bi kon na koy def ci guddi ga su bëccëgee mu dindi ko ba mu set ñu jàpp bu baax na itam yu bare bari day aada rek ji ñu fi fekk mu leen di sang waaye du dara mel ne teg ab la yokk yeneen ci seen kanam wala sàkk waxtu woo xam ne ca la ñuy sangu mbaa ca la ñuy fóot mbaa ku fóot bala ngaa génn ngay bàyyi ba la nga fóotoon fenn baa lu ko nuru xeet yooyu yëpp ay bidaa la lu ñu fekkoon rek la ci maam yi lu aju ci wàllu sangoo fóot ak yi fi aada yëpp daal moom nañ ko daan defe rek ba ñu tàmbileegul téngi noonu rek la mel dara soppi wu ca ba tey nañuy moytu bu baax tàllal seen i tànk mu jëm xibla maanaam fa ñu julli di jëm ñu tàllal seen tànk jëmale fa jëm xibla ak jaamu yàlla la lu ñu fonk la ba nit ñu baax ñi ñoom dañu ormaal wet googu ba jàpp ne tàllal ay tànk jëmale ci wet googu xëtt teggin la ba tey dañuy jàpp ne bëccëg bi moom bu amee soxla soo xam ne amul koo ko doxali rek mën na koo dem doxi bu amee liggéey boo xam ne amul kenn ko ca taxawal mën naa dem liggéeyi ko da mënti ñàkk daal mooy fanaan ci ab néegam guddi gi moom bu mu ko nekk fenn fu muy néegam waaye bëccëg bi moom soxla su mënta ñàkk tëru koo ko doxali mën na koo doxali boppam liggéey boo xam ne itam mënu koo ñàkk def tëru ko ko defal mën naa dem defi ko lu mel ne nag génn dem ci ak céet wala dem di jaale yi am na ñu ne mën na ko am na ñu ne mënu ko ci muxtasar ak saraayaak téere bii di waxee moom day mel ne du sañ a génn di dem ci ak céet wala jaale ji wala lu ko nuru waaye ni ma dawoon waxe moom dañu ne aayalu ko lu gën a wóor ne kon mooy rek dañ caa boole dem ci xeeti xew yi aada yooyu ak yooyu nga xam ne mën naa ñàkk ñoom yi iddaw itam bu waxtu julli jotee fekk ñu nekk ci benn barab li gën a wóor ci yoonu Malik mooy jigéen moom du jiite moroom ma buñ amee buñ amee góor gu leen jiite baax na buñ amul nag góor gu leen jiite kenn ku ne day julli jullik boppam waaye kenn du mën a jiite kenn